Elhadji Seydou Ndiaye dal leen ak jàmm ci xibaar yéenekaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo inna lillahi wa inna ilayhi nga xam ne kay moo jiite na gannaaw feebar gu yàgg goo xam ne kay moo tëraloon OTD Ousmane Tanor Dieng moom Ousmane Tanor Dieng démb kay la génn boobee kay yàgg na ko sonal ma nekkoon fi nga xam ne nag moo di France di faju yéenekaay bi dañu xamal ne démb kay lañu jox xibaar bi naqar yi kenu Sénégal daal di koy amee ñi nga xam ne que ñoo nekkee ci parti socialiste am daal képp yëngu ci politique ñu bëri démb daal amoon nañu naqar ci li nga xam ne daal mooy génn am ay secret yoo xam ne maanaam daal da koo denc moom Ousmane Tanor Dieng moom mooy génn àdduna ndax direct info ne ñu xamal ne bëri ay secret yoo xam ne moom Ousmane Tanor Dieng yóbbaale na ko ndax mbirum maître Babacar Seye mbirum Sankole ak yeneen mbir yoo xam Ousmane Tanor Dieng xam ne daal la gën a àdduna daal di génn ne denc nag fi nga xam ne nag moo di ngeeñeen yéenekaay bi di di ñu xamal ne OTD maanaam daal Ousmane Toutaji Vox Populi di ñu xamal ne mbirum Sénégal maanaam daal parti socialiste ak ñi nga xam ne daal ñoo yëngu ci politique ñoo ñàkk guy gu moo daanu muy Ousmane Tanor moom di nga xam ne nag ci réewum Sénégal yéen kaay bi di ñu xamal ne kay Sénégal kay moo ñàkk dëgg ki nga xam ne nag moo di Ousmane Tanor Dieng jeexale ko tàggat yaram yéeni bi di stade di ñu xamal ne match bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Sénégal ak Tunisie maanaam final bu Algérie bokk na ci réew yi nga xam ne moo gën a sonal Sénégal